mag bi yéen ñi nga xamante ni bëgg ngeen a fësal seen ay produits mën ngeen ñoo jot au 77 468 54 52 18 safar suñu yitte. jotaay bii tey kooku ko gis xam ni yàlla fay na sëñ Tuubaa de xoolal ñu ko escorté woon muy dem Ndar moom mu bokk ceew diib taalibe ànd ak ñëpp ñu ñëw nuyu la fay na sëñ bi di yeesal suñu kóolute ak suñu njébbal ci yow di am yaakaar lool ci yow itam ndax yaay Serigne Touba ci kaw suuf. te ñun loolu rek liñ gëm di la sant di la gërëm itam di sant di la gërëm Mbàkke di yëg bis bu nekk itam li ngay ñaan yi ngay ñaanal réew mi ñu koy gis bis bu ne di ko yëg bis bu ne di yëg itam ñaan yi ngay ñaanal gendarmerie nationale eh, ndax liggéey bi jafe na bu ñu demee ba ci mën a def yenn yi du suñu jàmbaar ñaan gi la ndax saa bu ma fi duggee bu ma génnaatee damay defe ne gaynde bu taxawee ci sama kanam sax war naa mën a jaar ci kawam dem loolu nag kóolute la eh, moo tax bu li mel ni xewee dañuy dellu si woon la ni liggéey bi lépp loo nga xam ni mbirum sécurité la dañ cee bëgg dalal sa xel ci li nga xam ne nii gendarmerie moo ko yore am pàcc bu ci police yor am pàcc bu ci gendarmerie yore waaye li nga xam ne gendarmerie moo ko yore moom boo tëddee mën ngaa nelaw ndax loolu moom duñ ko caaxaane te xam nañ dëkk bi xam nañ li mu laaj mooy yombalal nit ñi ñu ñëw ak lu mu mënti metti metti léegi wax naa leen ko réunion nee naa leen saxaar gi bu ñu taxawee ni bu kenn taxaw ci biir loolu ay waxu caaxaan bu kenn yéeg ci kaw toit ba waaw kañ ndax boo yéegee ci kaw man ngaa daanu waaye nag moom fi ne lu mën a indi nit Touba rek moom loolu moom wax dëgg yàlla lu wara yombal la li nga xam ni nit ki da koy def te du daanu bakkanam man cee des wala mu gaañu ci loolu moom tolerance la il faut ñuy xam ni xër la gu ñu am ñoom ci Serigne tuubaa loolu nag il faut ñu yombalal leen ko di leen ci dimbali itam nee naa leen aussi ñuy bañ a topp mer ndax ki nga xam ni dafa am lu mu gëm ànd ak xadaram jóg boo ko toppee ci xadar bi mën ngeen a jote mais da ngay xam ne rek la ko yëkkatee ko ñor nga yombalal ko ko di ko ci dimbali itam ba mu egg maanaam fi ne nii daal moom lépp loo nga xam ne jot na ci sécurité parce que fii fukki escadron lañu fi doon indi mais ren ji maa ngi fi indi ñaar fukki escadron ak juróom ndax xam naa ni nawet lañu ne dëkk bi dina gën a xat insécurité bi mën naa bari moo tax ñu def ko vingt cinq escadron waaw pour mu mën a mate bagage yi ñu doon teg ci tali bi aussi gën nañ ko yokk maanaam lépp loo nga xam daal war nañ koo faggu pour ñiy ñëw mën a ñëw jàmm mën a dellu ci jàmm ñi nekk ci dëkk bi aussi nekk ci sécurité parce que Sénégal dafa toll foo xam ni sécurité jarul foye ndax euh, fu ne mën na faa génne te day génne it foo ko foogewul waaye ñun daal pàcc yi nga xam ñun ñoo ko moom moom loolu moom maa ngi ciy dalal sa xel bu baax ndax président de la république jox nañu ci ay instructions yu leer nañ yoo nga xam ni ñun tamit jël nañu ci ay matuwaay yoo nga xam ni yaakaar nañ ni daal ak sëg ñaan ak yaakaar ju ñu bokk ñun ñëpp am ko ci Serigne Touba yaakaar naa ni màggal gi dinañ ko def ci jàmm ak salaam mu romb ci jàmm ak salaam bari na ñuy tëkku nag mais loolu na sama xel dal parce que kiy nara jëf du wax am na loo nga xam ni ki ko nara def du ko wax wax ji bari na waaye fii moom yaakaar naa ni kuy tëb di jéem a yàq màggal gi yaakaar naa ni yaa yàqu loolu moom mooy lu wóor ñun nag jël nañ suñuy matuwaay pour loolu ndax saay-saay moom dafa bari pexe waaw mais jël nañ ci suñuy matuwaay te borom bis bi itam yaakaar naa ni ab bisam ñi ne fii ci kaw suuf tuuti nañ lool pour mën koo yàq loolu moom boo xamee boo xamee dëkk bi ak boroom am na loo xam bu ko nit di wax dalay defi ree ndax xañ na dañoo xamul ki moom bis bi boo xamee ki moom bis bi nga ni man damay yàq màggalu Tuuba yaakaar naa ni ngaa xamul boroom bis bi mooy kan ndax fi mu jaar yaakaar naa nii bu amoon ñu ko mën a yàq ñun duñu fi toog tey yàlla ko aaral boppam Eh, ñun nag dañ ci teg suñu loxo nii rek di ko mottali waaye moom ay mbiram aaral na ko boppam ba pare ñu am ci yaakaar loolu itam nag Mbàkke ci yow ci lu bëri ci ñaan yi ngay ñaan réew mi ci ñaa jàmm ji ngay sàkku ci réew mi walu umpul kenn te ñun kuy sàkku jàmm rek ñun ngay dimbali parce que ñun bu jàmm amee ñu mën a am suñu bakkan bu jàmm amul suñu bakkan day xaw a jafe kenn ku ne gis na réew mi li fi xew temps yi yëpp. Euh, ñàkk jàmm doo nga ko indi ndax bu jàmm amee gendarme yi am jàmm bu jàmm amul nag gendarme mënul am jàmm ñu ngi sàkku nga gën ñu cee ñaanam di la ñaanal yàlla gën a yokk saw fan ba ci kanam kanam mbake nga gën a wér euh, gën di ñaanal Sénégal loolu daal moo nekkoon tànk yi yu ñuy jóg dama ne woon dinaa la indiwaaleel am ndox lii ay butéelu ndox la moom lañ indiwaale woon yii itam xañ na nit ñi yaakaar nañ ni mbir mi jàll na waaye yaakaar naa ni am na njariñ ba léegi parce que am na ñu koy sàkku ak yi nga xam ni xañ na léeg nit ñi duñu am ndox waaye ku amul ndox moom mën na ci fomp lii itam ay mouchoir la yoo nga xam ni dafa ànd ak alcool ak yëpp boo ko fompoo boo laalul ndox it mën naa waa lii daal lañ indiwaale woon Mbàkke di la sant di la gërëm nga baal ma nag ci kàddu gu gudd gi maa ngi koy jéggalu bu baax ndax waruma wax sa kanam. am na mbégte lool ci kàddu yi lool. mu ne dégg na ko itam bu baax a baax. mu ne gën nañ cee xam seen yéene ak seen pësteef ak seen yitte. mu ne te loolu rek mooy li am solo. mu ne kon jërëjëf. nee na mi ngi sant bu baax a baax. di di gën a am yaakaar bu baax. mu ne di gën a am xel mu baax te ni nga ko ni nga ko waxee. mu ne di gën a am xel mu dal bu baax. ci ni nga ko waxee yow. mu ne dégg na ko nii. mu ne wóoloo na ko noonu. mu ne xelam it dal na ci bu baax. li tax gën xel mi li tax a sa sa sa jëmm yow. mu ne loolu alhamdulilahi rabil alamin li tax xel mi gën a dal mooy sa jëmm ji yow. mu ne ndax am nañ lu ñu xam ci yow. ci taxawaay bi ci taxawaay bi. mu ne loolu lu ci am solo la. kilifa yàlla ndax kilifa yàlla moo koy def. mu ne kilifa yit dafa am ay jikkoy boppam yu war a nekk ci moom. mu ne jikko yooyu am nañ ci yaakaar ci yow. mu ne xelam dal na mu baax day ñaan suñ borom mi nga xam ne mooy defa ko dindi mu sàmm leen te aar leen mu ne suñ borom mii defa ko dindi mu gàttandu leen ak taw feex sëñ Tuubaa ba jàmm ji ngeen bëgg mu ne yàlla defal defal defal ñu ko defalal ñu ko boppam mu ne loolu mu ngi leen koy ñaanal baax mu ne nu nga ko waxee rek gendarme bu muccee rek ñëpp mucc mu ne kon mi ngi ñaan yàlla sàmm leen bu baax. te gàttandu leen. mu ne ba gàttandu leen ba lépp lu ngay liggéey rek suñu borom defal leen ci ndam. defal leen ci barke itam. mu ne te. mu ne te nit ki lu mu jug yàlla tax lu mu jug. mu ne lépp lu mu jug te yàlla rek tax mu di ko def. faw barke wàcc ci mu ne kon noonu rek la demee mi ngi lay sant bu baax di la gërëm ci taxawaay bi mu ne xelam dal na bu baax jërëjëf sant ñi ngi àndal ñëpp nag ndax xam na ne nee na ñi nga àndal yéen a bokk jublu gi yéen bokk yéene ji waaw waaw waaw waaw Modou waaw mu ne Modou moom doomam la woon ndeysaan wallaay lay Mbacké lay Mbacké sa doom yéen ñi nga xamante ne bëgg ngeen a fësal seen ay produits mën ngeen ñoo jot au 77 468 54 52 18 safar suñu yitte